Serigne Cheikh Bachir Ndaw ñu goon xam ci gane àdduna maam Baye Niass mel ni euh, ci weeru rajab la gane àddina mhm. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi kama li jalaali wajhihi wa azimi sultaani alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi ul mazid alhamdulillahi allazi bi ni'matihi wa jalaalihi tatimu saalihaat wa salaatu wa salaamu ala xayri wa radiallahu an alsaxaabati alladina azalluna bi zilli l iman wal ixsaan man chammaru an saaqin fa ballagu maa waaw fahtadu bi nuurihim fariqaani ridwanullahi taala alayhim ajmain wa baad ayuha almushahiduna alkiram fi ltelfasati walfajri iclamu annahu kaana wala yazaalu illahi ibadan radiallahu anhum wa radu anhu wa kullama laha hilaalu chahru rajab يذكرنا بعدة نعم أسبقها الله علينا ومن التكلم النعم أن طلع علينا قرص شمس المعرفة بالله من سوى سد ترو مياه المعرفة بالله فإذا مياه المعرفة بالله تتدفق في أنابيب السالكين وأنهارها تتموج في سلالات المتعطشين وزلالها يتسرب في سراين الحريسين فأصبح سهارج المعرفة بالله tantaqilu min huna ila hunaka li tashili qawaanisu nuur wa diya fa huwa cheikh ibrahima ñas ibnu alxaaji abdullah alkawlaxi radiallahu anhuma wa adama zill dawxatihima wa qallada zikru talaatihima amin huwa xamrul xalaal wa xadiisul jamaal wa manzarul jalaali wa damiirul kamaali wa taaju rijaali wa shamsul zawaali wa xuruuful ijlaali wa suuratul anfaali wa marmal amaali alsaadiq al aqwaali alxasanu al afaali al mubiidu lil maali al munqizu min addalaali sayidu saadaati wa misaabu darajaati wa lubbul xadaraati alxaadiru ma allaahi fi saairi al awqaati almuraaqibu lahu fi muxtalifi tajliyaati alzaakiru li rabbihi fi jamii alxaalaati alsaajidu almuqtarib fi kulli laxzatin min laxazaati alaalam alalaamatu alaarif wa zillu zalil alwaarif walxabibu almuhib alhaadif walmuhiitu alxatamtam aljaarif wa saqiyu almicta alxaarif wa raafi alsaajid altaif walmuhibu alraaji alqaaif almajidi bilminani wala taifi wa binnawaadiri walsawaadiri walmacaarifi wa bima fi arxaami alkutubi walsaxaaif ayuha almushaahiduuna alkiram ñu ngi nuyu mboolem ñu ñuy seetaan mm-hmm. gannaaw bu ñu sante yàlla yàlla mi nga xam ne ci maggaayam mm-hmm. ci la lépp di mate mm-hmm. nit mën nga bëgg waaye bu soobul yàlla dara du mat ci portale bi ma def léegi ci ki ñu war a waxtaanee mm-hmm. nga xam ne moo juddu fukki fan ak juróom ci weeru rajab point yi ma wax yi yëpp benn bu ma ci jël mën nañ ko développer lu ma weer surtout bi ma mujj a wax yàlla wax naa ko keroog àjjuma yàlla dafa may Sénégal ay ñoo xam ne ay jamaa lañ ay nit ñoo xam ne. Mhm. nit ñu yegg ci dayo baax la. ñoo xam ne wax naa ko ci benn waxtaan ci Arafat ma ne benn waliyu yàlla ci senegaal dana lëng junne junne nit ñoo xam ne nekkuñ fu ci suuf soosu. Mhm. lu ko waral seen liggéey ak seen jeex ci yàlla. Mhm. kiñ ñu bëgg a waxtaanee mooy Maulana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahima mi nga xam ne soo ko xamut li Sidi Ali waxoon fa huwa bi jëmi amaraati bi mooy sëriñ ci lépp lu ñuy tuddee sëriñ ndax sëriñ ci jàngale dafa am sëriñ ci yara dafa am sëriñ ci yéegal dafa am mm-hmm. nit mun nga nekk sëriñ boo xam ne da ngay jàngale téere yi rek yem ci xam ko xàmmee ko nit mën nga nekk sëriñ boo xam ne doo jàng yàlla du la may nga mën a jàng téere yi mm-hmm. waaye danga am mën a éduquer nit ñi éducation boo xam ne bu jaar yoon la nit mën nga tële loolu nekk sëriñ boo xam ne doo jàng doo am xam-xamu téere yi waaye danga am xam-xam boo xam ne danga mën a jël nit ki éegal ko ci pays yàlla yi moom nag dafa boole ñetti maraati bi yépp lax sëriñ la ci jàngale maanaam waxtaan bi comme que temps amut mhm. dañ koy résumer rek Euh, maanaam sëriñ la ci jàngale lu tax xoolal ñim jàngal xoolal ñim yar xoolal fi mu jëlee njàng alquran ak njàng daara ak ni ko moderniser léegi ñu ngi wax daara moderne daara moderne bàyyi ba muy moderniser daara di ko tuddee Mahad Alhaji Abdoulaye boobu mën naa wax ne njàng arab sax amul ci réew mi mu wax ne maa ngi tuddee daara ji suma baay alaaji Abdoulaye ndax ci daara ji man ci laa jànge daara jooju ma jànge dama gis ne dafa dëppoo dañ ko war a dëppale ak jamono mu beesal ko dégg ngeen discours yi mu ci def ci ikteem ak ci bëgg xam-xam dem na ba jëli ay jàngalekat jaamiatul azhar indi leen fii Sénégal ñuy jàngale arab lu waral loolu parce que am na moom bi muy man ñoom ñëpp moo leen doon jàngal mbooleem taalibeem yi mboolem téere yi moo ko doon jàngale mu ne am boobu amul sax ku ko toppal mu téye enseignement bi di ko jàngale di jàngal nit ñi di leen yar di leen former mm-hmm. kon sëriñ si tamit nañ bàyyi xel ci li ñuy wax sëriñ nga doo jàngale doo yare mm-hmm. leneen nga léegi nag baatab sëriñ dañ koo jël mm-hmm. généraliser ko ku taxaw kaalawu téye téye yar rek ñu ne sëriñ nga ba fi mu ne sëriñ sax pour wax ne sëriñ nga sax léegi kenn ñemeetu ko kenn buggatu ko sax wax waaye sëriñ dëgg dëgg dëgg nga xam ne dangay jël nit ki dara du nekk ci moom mm-hmm. nga def ci moom dara mm-hmm. jàngal nit ki lépp li ko dalee ci téereb yàlla bi ba mu mm-hmm. wëttu ko loolu rek bu ñu xooloon li ci Mawlana Cheikh Ibrahim def kon bu ñu ne sëriñ la ci jàngale parce que dem na ba ne wali bu nekk am na karaama waaye yow suñu borom yàlla nga def mokkal alquran muy suma karaama di ko mokkaloo tamit nit ñi fal tajaalan na xibsa kitaabakal karimi karaamati illa shawqi wa xubbi fii ka laa yasfihi siwaa xululi wa irtixaali mm-hmm, mm-hmm. naruumu an yasxabanaa bi xifzinaa lahu madda dawaam mm-hmm. mu teg ci na xat nii bihi xut nii fa kitaabuka shaafi li il ahzaan noonu la mokkale alquran moom daf ko mokkal ci dund baayam amul guddi gum jël boo xam ne lu duna tëril na way juram faatiha ba ci minal jinnati wa guddi gu nekk noonu la ko mokkalee ba bi mu demee activité lu mu bëri bari bëri bëri sëriñ boo xam ne toll nga ci àdduna yëpp di la ñëwal mhm. terewut dana xëy waqaf mhm. suba bi bu guddee mu tari ko mhm. semaine bu nekk ñaari kaamil noonu la yeree njabootam noonu la yeree ay taalibeem jàngale tamit li ko dalee ci laxdar yu ba ci asmaa yu ba ci murshid dégg nga dem ba ci risaala ba ci lawal ak xalil yooyu yëpp da ko doon jàngale jàngal nit ñi njàng moo xam ne mu wér la. mu xaaj Medina. dem jëli rabbaan yi ci naari Murtani pour ñu defar. Euh, xale yi seen maxaarijul xuruf. ñu yar leen ci loolu. jël Seydi Ali Cissé jox ko njàngam fiq juridique islamique. jël Ahmad Thiam jox ko lépp loo xam ne grammaire la. moom mu féetewoo enseignement supérieur. muy maqaama suara sitta ak yu demee noonu. bi demee ba gis ne. léegi mage na ci la beesal école bi dem indi ay jàngalekat hmm. Mauritanie jox ko ay professeur Égypte jox ko ay professeur ba hmm. ñun ñi ñëpp ci leen génne mu ne daara ji ci laa génnee képp ku ci jàng benn xaraf dana barke hmm. kon bàyyi bu ñu waxee ne sëriñ la ci jàngale buñ téye ku mel ni Barham jóob rek kon mën nañu wax ne bàyyi jàngalekat exemple yu bari ñu mën a jël Barham Diop rek parce que Barham Diop dem na ci benn congrès ku nekk di présenté wu maa ngi def doctorat nangam nangam mu ne man maa ngi jàngee ci daara ju yoo xam ne na bàyyi ci benn góor Cheikh Ibrahima Niass. bi mu waxee mboolem sees yi ci Azhar. ñëpp yuuxu jàkk jàkkaarloo moom. yàgg naa. nërmal borom xam-xam yi. ca Baye moo ko jàngal. kon. sëriñ ci jàngale la. sëriñ ci yar la. parce que borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yi mu surafaaw yooyu yëpp. amoon nañ xam-xamu shariatu. ba doyal ku dem Mauritanie du leneen lañ manqué ba mu des xam-xam waaye góor yàlla yooyu nga xam ne jàng nañ téere yi nekk ay woykat nekk ay ku mel ni Sukayri ji euh, ku mel ni Mouhamadul Hafiz mhm. ku mel ni Cheikhaani ku mel ni Misri ñooñu ay shérif lañ dañoo jàng lépp lu ñuy jàng mhm. taalif ay téere bind kon bu ñëwee topp baay am na lu tax mhm. tarqiya ba la ak tarbiya ba mhm. Mame Mbaye Niass Cheikh Bachir Ndao mhm. euh, instauré li nga xamante ne mooy faydatu tijaaniya mhm. mën na na ñoo xam lan mooy faydu waaw faydu ni ko saas jàngale dañoo organiser benn dars ci Kaasiful Albaas SEDEPS muy jàngale kaas mun a indi butéelu Evian bi mu indi mu jël kaas bi wax waa na ko sottil mu sotti mu continuer di sotti muy tuuru mu ne ko faydoo ngoo faydu mooy lu fees ba tuuru bu tuuroo nag. Mm. nit ñi danañ naan jinne yi danañ naan ñëpp danañ naan parce que lu tax parce que boo xoolee tey lu ëpp ñaar téeméeri million. Mm-hmm. topp nekk ci gannaaw Cheikh Ibrahim. ku ne xam na ne loolu ndox màndiwu leen. Mm-hmm. ku ne xam na ne loolu géej euh, ay bërigo màndiwu leen. parce que almaali ati li kulli mutaadidin minal buhuri wal mm-hmm. awaani. faydu boobu nag du loo xam ne bàyyi da ko indi keree ko bi mu ko bi ko ootee ñu ne ay jinne la indi nangam nangam. bàyyi laaj nañ ko mu ne. wa zalika al faydu min rabbi wa man shaahu xaqiqatul mustapha jaali amalaay bi bi zahiri sharci mhm. wa nuuril mubiini mhm. u muy waxi ak waxi yonant ci laa yar sumay taalibe duñ sikk sàkk duñ rëng-rëng duñ wax waxi dof duñ fanatique mhm. taalibe baay bu dof amut kuy dof dof lu rek royoo ko ci baay bëri nag ñu oote woon ne man tey ji mën nga dajeeg nit mu ne wal fajiri laay liggéeyee. Mm-hmm. est-ce que tax na mu liggéeyee. bëri na ñoo xam ne ñu ngi def usage de faux. Mm-hmm. ci di oote woo loo xam ne duñu mm-hmm. waaw waaye bàyyi faydu boobu mu ngi ko jëlee ci yonent yàlla Muhammad. parce que bisaatul xaliyati dóoree amul ku ko mën a dékku lu mooy jëmm yonent moo tax yonent yàlla Muhammad moomu. moo tëbb Ahmadiya muy Cheikhna Ahmad Tidiane Cheikhuna Ahmad Tidiane bi muy génn àdduna wala avant muy génn àdduna daf ne faydu dana ñëw waaye nag du jamono bii ma nekk su ma génnee àddina ba nangami at su ñëwee dana fekk jamono nekk ci crise nekk ci xat-xat dégg nga waaye faydu boobu feeñee da ngeen gis nit ñi dugg suma tarixa ay kuréel ak i mbooloo kii feeñal faydu bi fanweeri at lay am mooy raw ñëpp ci xam-xam mooy raw ñëpp ci alquran. Uh-huh. bi mu waxee wax jooju ci diggante bi lu ëpp téeméeri téeméeri nit dem nañu oote ko uh-huh. waaye bi ñu demee ba ci kanam ñu gis ne du ñoom ñu génn ci dañ dafa dafa waxtu moo guddul waaye uh-huh. konoon danañ tuddal ay tur yoo xam ne ku ci ne dem nga ci maqaama ba foog ne yaay loolu alxaaja ma jox la exemple ci misri bi ma tuddoon baay way juróom alxaaja abdoulaye wul du xaaj jamonoom demoon na ba toog ci xilaafa tijaaniya nekk di xalifa waaye bi mu demee ba ci mujjam xam na ne du mooy borom faydu bi mu di ko nag fan la ci Sénégal ñëwee ba Kaolack def li saxaar leer xotti wàcc ci kër Alaaji dox ba ñëw fa taxaw ci bunt bi maam Alaaji Abdullah di julli ji gis ko mu julli ànd ak moom après ñëw ci kër gi mu wax ko yoonam mu jox ko sart ne ko bi sart nga bañ siwal sama mbóot mu ne ko waaw mu di ko présenté xale yi di ko présenté ba ñëw ci baay après ci guddi gi mu dal ak baay bokk benn néeg mu ne ko faydu képp ku koy oote ci loolu yow ko majaas la faydu dana feeñ ci sa loxo yi ba nit ñu dugg ci mboolo waaye da nga gis ci kañaan ak xeex ak nooneel mm-hmm. loo xam ne benn nit du ko gis te loolu dëgg la mu ne ko bul oote faydu bii nag feeg déggoo na génn na àdduna mm-hmm. parce que seesu xilaafa maa ci toog soo ootee nit ñi duñ wuyu si parce que mbir mi dafa am nu muy doxee. dafa am yoon wallaahi. keroog bi alxaaji Abdoulaye wul doxaaj génnee àddina. ca gàmmu wagg bàyyi di sikkar nit ñi yuuxu. bàyyi di sikkar nit ñi yuuxu. mu taxaw ne man maay xalifa yonent yàlla max man maay xalifa Cheikh Tidiane ku soxla bëgg xam sa borom ñëwal. Mhm. fekk lu jiitu loolu ca Koosi da daan toog ba mu yàgg rek génn def tànki neen karaw gi firee mhm. mu naan tii qariban faydatul xatmi xëyi u bi tafriqi axyaarin fa taxza bi mawdii ala inna al awaani xatmu li na bi xayriha ala fafriquha taltaqo kulla an fa mu ne faydu dana feeñ raxas leen seeni bool raxas leen seeni ndab ndax bu ñëwee ñu yàkkal leen ndax toog gi lu mu jaar yoon jaarool boo jëlee ndab bu salte doo num tëddati mhm. moo tax foofu dana daan taxaw yi garab gu mu ind day wow parce que sikkar ba laal benn daa mbaam la wala lenn. dafa la yem. bu ñu ko indilee bidon vingt litres mu naan ko bu lu ñu ko indil ci ndox mu naan. mu ne même océan Atlantique su ngeen ma ko indiloon ma naan ko parce que booba li awsa yi war a naan. Mhm. li yorobaa yi war a naan li katakul yi war a naan. Ah. li farfara gunja raawu mm. wala dégg nga xuransi kusaasa walubbi barxuuda raati mm. ñii ñëpp. ay millions ngi ñu ngi war a naan. Mm-hmm. dégg nga ca lépp mu ngi ci dënn bi mu ngi dënn mu ngi mu ngi fuddoog moom moo tax nag keroog bi nga xamee ne vingt-neuf trente faydu bi tàkk bi faydu bi tàkkee ñu ne hee Ibra Assa lañ ko doon woowee jamono jooju dof na képp ku am yu jinne indi na ko képp ku indi luy fajarab indi na ko moom mu xam lim xam moo tax mu ne yàllaa imi farsili xaali mhm. qad dahaani maa dahaani yow mi may yedd bàyyil suma mbir ki ma jommal jommal na ma li ko jommal mooy bëgg yonent yàlla muhammad li ko jommal mooy yonent yàlla muhammad wàcc na ci moom mm. moo tax mu ne fa qultu laa ilaha illa allaahu mm. muhammadun arsalahu l ilah fa faada minni sirruhu fala ahad yaqsuduni maa arafa allahu samad sawaun sigaaru wal kibaaru sawaun saaluku wa sultaanu qad qaruba alxabibu wal mazaaru wa marratan uxra taraw na ajaba min faydati zal xatmi imaami nu jaba mu ne bi ma waxee laa ilaha illa allah amul dara lu yàlla yónnente bi yàlla moo ko yónni mboot moom moo wàcc ci man amul kenn ku may jublu si man Cheikh Ibrahima Niass lu dul da nga xam yàlla moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam xale la moo xam buur la moo xam baadoo buur yi laajal Abdoulaye Bayo laajal buuri ka yi ñoom ñëpp bàyyi daf leen normal parce que bi bàyyi di wàcc Nigéria yoonu ñaare ñaareelam ay millions ngi nit ñoo ko teeru mu ne sama hina nasaltu sama qad dahaani maa lam yakun wallahi fi husbaani wa qad tayaqantu bi anna allah yajiru al umura ma yaraaha wa surtout aqul ayna sa cheikhu alladi taanu lahu riqaaba kulli jihbizi ayna barham wa ma barham kon faydu boobu duut loo xam ne dafa gàllankoor diine bi mu tàkkee nag ñu bëri dañ ne bàyyi dafay wane ay jinne bàyyi dafay wane rab bàyyi dafay sos ci diine lislaam lu ci bokkut yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne man ahdasa fi amrina haza maa laysa minhu fa huwa raddun mhm. képp ku sos ci lislaam lu ci bokkut dañ ko koy delloo mhm. loolu am na